asalaamaaleykum Feeling 221 amaat nañu mbégte ak contentement teewaat fi nga xamante ni mooy diwaanu Betuwaar tey nag dañu daan dalal ñaar ñoo xamante ni kenn dootul leen laajte wala kenn dootul leen naataamle fii ci diwaanu Betuwaar ku ci mel ni Alé Lo mu baax mi nga xam ne tubaar fa kàll macha allah sama cat ak sama catu morom ku ko xamul dégg nga ko dooleel ñu ci biir Feeling 221 ak euh, soxna su baax si di toog di wuyoo ci turu Ami. Ami Fall Ami Fall nuy nañ la ziar nañ la. waaw euh, maa ngi leen di fay. alaikum. Euh, mbokku Feeling 221 maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, ñi leen di seetaan ñëpp di nuyu di am ak contentement di toog ak ñoom euh, fii plateau Feeling 221 macha allah. waaw Ale ñu ngi lay nuyu di la ziar di la tatagal dina la yëfi sa yëf la. waaw yëf moom sama la nuyu Feeling 221 di rafetlu ñëw bi nga ñëw si ñu si abattoir. ñu contane si lool parce que tay gis nañ jafe-jafe yi émission yi nga xam yeen def di wone jafe-jafe dëkk bi di wone yi nga xamné moy yu metti nga xamné kontel nit ngi koy jankontel di contane lool di nuyu de passage euh, ki nga xamné moy papa Maysa di nuyu sun sen cameraman bi nga xamné xolé bu am yar la ko am teggil la muy muy babakar di ñaan yalla yalla defal ñu jamm defal ko mbolam julli contane yeen ci yeen bu baaxa baaxa baax waaw bëggoon nañu xam euh, tata amicole Collé ak euh, Ale mi nga xamante ni ñoom ñoo ñu dalal fii ci diwaanu abattoir. comme ñu ko waxee toogaay bu jekk bi ana lan moo ko sabablu ana lan moo leen métti li nga xamante ni moo nekk ci seen diwaanu quartier ak yoon bi nga xamante ni moom moo leen gën a sonal loo xamante ne yàgg nañ ko jooytu defe naa ne ay ati ati at ay pendant des années nguur gu ñëw jàll nguur gu ñëw jàll. tey nag yàlla def li nga xamante ni moom lañ doon ñaxtu yàlla def ci ndox mu sedd ba ñu gis bunt boo xamante ne taxaw na temm pour defaral leen jagleel leen yoon bi nga xamante ne moo xàll jëm chambre de commerce moo jëm stade yoon bi nga xamante ni Kaolack defe naa ne jafe-jafe circulation buñ ko defaroon jamono yi duñ wax ne Kaolack am na embouteillage parce que yoon bi euh, dafa génne liñ naan ñetti sële fu la neex jaar bu la neexee dévier jaar nii bu la neexee nga dévier jaar côté chambre de commerce mu nekk loo xamante ne lu yàgg euh, luñ yàgg xeex la luñ yàgg euh, jooytu la luñ yàgg bëgg mu saafarawu ba yàlla def ci ndox mu sedd léegi dañuy toog waxtaan ak ñoom ana ñoom ban yëg-yëg lañ ci am ak tamit ana kan moo jël initiative boobu ba ñaxtu bi tombé. li ñu bëgg ñu am ko loolu lañ bëggoon waxtaan ak ñoom tuuti sama cameraman bu ñaaw di Babacar di la jaajëfal ci image yaa ji <coughs> waaw loolu moom boo ñu ci eh, eh, kii dañ ci sawar a wax parce que ñun fii la am te li ñuy xeex yëpp pour fii la mais nag yoon bi li ma leen wax barki démb réunion ñun biñ koy xeex du pour ñun parce que pour Kaolack la Kaolack moo ko soxla ndax defe naa ne tali bi Euh, su baaxee dina décanter situation route nationale bi te bu fekkente ne oto yi dañoo jógee garage Nioro du jaar du jar ñuy jaar route nationale ndax dañuy jaar ci yoon bi direct mën na la yóbbu ba tàmbaa ba ca kaw kon tali bi du ñun rek la soxal mais Kaolack la soxal yàlla nag euh, ci mbaaxam moo ñu jàppale parce que euh, di soxla muy faju mbaaxu yàlla la ñun nag dañ ci yàgg di xeex ñu nag euh, suñu góor ñi am na ñeneen ñu ci nekkoon di xeex ndax fi ñu dëkk lañu am ñu doon xeex pour assainissement ak tali bi ak lumière boobu ba léegi nag 2020 euh, ba léegi ñu nekk ci di ci yëngu ndax lépp pour suñu euh, quartier bi moom la ñu am moom la ñuy tiitaroo bi ñu demee nag ba nga xam ne daje nañ ci ay yooni yoon di réunion ba yàlla def nag bërki démb équipe technique bi nga xam ne ñoom ñoo yor euh, affaire tali bi ñëw fi ak euh, waa Promovilles ak ñi nga xam ne ñoo koy saytu wax dëgg yàlla dañ si dañ cee am nag euh, mbégte ak contentement ndax dañuy wax ne suñu ñaan yàlla nangu na te su fekkente ne da ngay xeex pour dara di ci ñaxtu à chaque fois yàlla dimbale la nag ba tey loolu noonu ñu naan la xej na ñu ngi toll ci njeexital ndax defe naa ne keroog dañ nañu réunion bu mujj bi moo nekk nii léegi techniciens yi lañuy xaar ñuy sant yàlla bu baax a baax ci acte boobu noonu di ko gërëmee tamit ñi nga xam ne boobu ba léegi ñu ngi bokk ak ñoom ak xeex bi di ci di ci góorgóorlu di ci def suñu këmtulaay kàttan yàlla na yàlla yeggali buñ koy commencé ñi ko fekkee suy yegg yàlla na ko ñëpp fekkee kenn bañ a manqué foofu laa si yemagum dans un premier temps waaw tata Ami Collé ñu ngi lay jaajëfal euh, tonton Allé bëggoon nañu xam yow tamit ana ana lan nga yëg ci li nga xamante ni waa Promoville def nañ ko ci seen diwaanu quartier bi nga xamante ni yàgg ngeen ko jooytu yàgg ngeen ko ñaxtu. waaw damay sant yàlla rek di julli si Yonent bi sant waa koñ bi yëpp fu may tàmbalee rek mooy damay sant jëmm ji toog muy Ami Fall mu nekk koo xam ne keppaari njëriñ la ndami koñ bi la parce que koñ soo fa dëkkee.

diko ko curé di génne di di ko di loué ay autom pour ñu ko yóbbu ak yu démé noonu mu nek jigéen ju bax mu de passage jigéen ñu ko lo di def ak seen goor yi nga xamné dañ la doon jappalé ku melni aladji Aliou mu nek nit ku baax ko xamné tamit ndami koñ bi la ay ñom ñom bili ak ay ñenen ak ñenen kon Ami Fall tay mu lay wax na amati na ndam ndax fi ñu taxaw tay ba war ko defar tay yàgg naa taxaw di di ñaxtu di si di si di si di def di def ay sortie di ñaxtu di ñu ko dugal si réseaux sociaux fu nekk si àdduna pour wane ne fii da a defar ndax fii li ñu ko defaree def comme ni ko Amy Fall waxee defarul luñ ko Kaolack nañ ko defar ndax Kaolack yenn saa day am embouteillage parce que tey soo xoolee Kaolack Carrefour la mun ñu am li nga xam ne mooy ay tourisme religieux ay mag gàmmu di am poroxaan di am yooyu di am nit ñi duñ am sax fu ñu aw soo xoolee poroxaan nit ñi dañuy jéggi ba dem ay côté nangaan kon tali bi suñ ko defaree day nekk loo xam ne tey day dimbale dem dikk bi fii si wàllu Kaolack kon Amy Fall mun lay wax ne ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di wax ne amati nga ndam tey di ñaan yàlla li nga xam ne mooy projet bii nii parce que tey ku wax tali wax yu muy lëkkalool problème yi duudaan yi problème yi ONAS yi problème yi canalisation yi yeneen problème problème si biir yooyu Ami Fall dina si ñëw pour mu gën si mun a yaatal waaye daal dañuy wax ne tey jii nii tey kontaante ak ak ak bu mag leen am parce que tey di gërëm gi nga xam ne mooy tamit état bi tey yow ñu si ñu si tàmbali ki nga xam son excellence le président Macky Sall parce que état continuité la waaye projet bi projet Promoville yi nga xam ne ay kilométrage yoo xam ne dañ koy jël di ko may yenn dëkk yi gox goxaat yi yàlla mu ngi doog a dogal tey jii ni kat ñu war a ñëw fi def ko dañ siy gërëm ñëpp di ñaan yàlla tamit état bu bees bi def lu baax li nga xam ne tey jii ni kat dana jëriñ réew mi wax dëgg di ñaan yàlla yàlla dimbale ñu kàttan nañu ba ay yeneen projet yu yeneen dëkk yi di am ñu xeexaat mu dëkk mu ñëwaat fii nii waaw tonton Allé ñu ngi lay jaajëfal waaye dañu dañu dégg nga wax euh, sànq lu am importance ci tata Ami Collé mooy que ni koñ bi ñu dëkk canalisation bi parfois dafay bouger mu dugg ci biir ak ay jigéen yoo xamante ne ay femmes battantes yu dugg ci canal di ko gas ah man de bu dee am na tamit bariwul lu ma koy gis kon di débouché yi bouché ak yooyu yëpp di ko defar kon dafa nekk euh, benn jigéen boo xamante ni dama bëgg moom ci boppam liñ naan euh, nettali ci làmmiñu boppam la daaxee parce que koñ mënul nekk amul hygiène loolu boo setul doo ko mën soo bëggul salte doo ko def parce que mënoon nga tuur sa morom tuur lu ñuy wax mbedd mi mbeddum buur la mais nga jóg en tant que jóg jiite la ngay booy sangu da ngay koy njëkkee mu bokk ci ñuy defar loolu ana lan moo la moo ngay def loolu maanaam yow yow yow dafa am lu lay déranger ci ci ci ci ci ci salte bi wala dafa am ñu ko war a def autorité yi war a defar koñ bi defaruñ ko yéen en tant que yéen ñi dëkk ci koñ bi ngeen jóg di ko defaral seen bopp waaw euh, loolu ci sawar a wax parce que ñun euh, loolu biñ koy association boobu biñ koy taxawal dañoo xool ne ñun ñoo moom suñu quartier ñoo ko war a defaral suñu bopp ndax ñoo ko moom ñoo fi yeewoo ak suñuy njaboot ma gis nag jigéen ñi ñii di organiser ay natt jigéen ñi di fa dajaloo ñii di organiser tuur yi jigéen ñi di si dajaloo ma xool xalaat ma ne mais man sege man actrice de développement la kon war naa jëriñ koñ bi ma dëkk ma dajale jigéen ñi ak xale yu góor yi ñu def benn association ma ne leen léegi ñun ñoom moom koñ bi ñu wax caan ci jàkkoon ñu daal di euh, commencé euh, mu métti woon lool nag parce que sànq euh, Aliou loo mu ngi tëddu alaaji Aliou ma koy nuyuwaale de passage ndax bi ñuy def association bi wax dëgg yàlla seetaanuñu woon benn yoon ci dooleem ci mën-mënam ci kàttanam ñu taxawal association bi ñun jigéen ñi bu dimanche kenn du woo sa morom ñuy ay jigéen ñu jàmbaar nag maa ngi leen di nuyu ñoom tamit muy waakaay ñu liggéey abattoir ndax taxawaay bi moo rafet bu dimanche ay jigéen nit ñi di di relax di naajee yeewu ñun ñu bàyyi suñu néeg yi nekk ci mbedd mi bu ñu ñëwee ku nekk indaale li nga am góor ñi jàppale ñu ñu njëkk koo def mu réussir premier dimanche ñu ko njëkk a def dañoo àbbi ji matériel mairie ñu luye mu manqué ñu fayee ko ñu ma ne kon dootuñu fa demati ñu fay kon li ñuy defee transport 2000 dem 2000 ñëw suñ ko dajalee dimanche bu ne am dara ñu daal di wax ko suñu càmmeñ yi moom ci Aliou moo njëkk a indi matériel su ma ko doon lim fii tey du jeex ñu di ko def ba sama benn rak ñëw fi ci kër gi moom it maa ngi koy nuyuwaale muy Guèye Samb mu fekk ñu defar koñ bi ba mu set mi ne ma dama ci kontaan daa di yëkk ci xaalis bu bari jox ñu ñu dem jënd ay brouette ay peel commencé nag ñi nga xam ne ñu ngi dëkk ci koñ bi ñëpp su ma ko doon lim tey du mat du ma juum mais du mat ñoom ñëpp ñii indi peel ñii indi brouette ñii indi rato ñu koy def ba ñi nga xam ne doomu quartier bi lañ nekk extérieur bu ñu gisee suñu liggéey di ñu yónnee matériel ma ne jigéen ñi bu ñu ci def ndajam xaalis buñ ci def dara bu ñu ñëwee bu fekkee ne lamp manqué na ñu cotiser defar suñuy jënd suñuy lamp ci mbedd mi soxlawuñu meer noonu lañ ko jàppoo nekkee ko noonu nekkee ko noonu ba man su may xool sax loolu moo tax ma jàll conseillère parce que Bengelum dafa ñëw ci koñ bi noonu fi seet benn sëram ñëw yem ci benn dimanche daal di ne ah waaye yow jigéen ñi def lii wax ko jarbaata yi ñu ne ko am nañ présidente mi ne kan la mi ne Ami Fall ñoom it lum taxaw ci taxawaay bu rafet moom it dem indi matériel may ñu bi ñuy dugal euh, conseiller mi ne ma yow il faut nga dugg ndax taxawu nga taxawaayu maire sa quartier moom it ci loolu ma ko ciy jaajëfal di ci jaajëfal keneen koo xam ne tamit euh, euh, bokk na ci ñi fësal sama liggéey muy Mouhamed Abdoulaye liggéey mu dugg ci koñ bi moom it di recensé fekk ñun loolu yëpp ñu di ko def ci koñ bi waa koñ bi nettali ko ko mu dem boole ma ak maire maire rencontré ma waxtaan ak moom man dama jàpp ne defaluma woon Macky Sall defaluma woon maire yi nekk fii mais suñu bopp lañ doon defal lépp loo xam ne koñ da soxla ñun jéggaane wuñ ko bu dee bale dañuy bale ba mu set bu dee canal dañ ci dugg seppi ba mu set suñ manqué lamp dañ ciy toppatoo ay lamp defar suñu quartier ba yàlla boole ñu nag ak chef de quartier bu baax moom tamit taxawaayam rafet lool ci biir quartier bi lépp loo xam ne ñu ngi koy soxla rek balaa ñu cee jóg di taxaw moom mu ngi ciy taxaw man nag euh, abattoir fii ñun defe naa benn famille lañ lu si nit nekk sa morom nekk ci bañ nañ ko ba maak aliwloo dañ naan duñu ñaar kenn lañ ndax lépp loo xam ne ñoo koy def rek ñun ñoo koy defandoo su dee politique maa moom ñoo koy defandoo parce que boobu ba léegi moo may jàpp sax ci loxo yóbbu ma ci politicien wax dëgg yàlla loo xam ne gis na ko muy lu baax ñu koy soxla ci karce bi dina ma ci jàppale taxawuma ci ba fépp fu ma ci songu am ci ndam maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax amuma fayam su ma doon lim ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci koñ bi di jàpp ci li ñuy liggéey ci koñ bi defe naa ne émission bi du jeex te kon nit ñi duñu mat mais sant naa ñëpp gërëm Euh, Tia Mikole Fall dégg nañ kàddu yi vraiment wax dëgg yàlla man man moom dama kontaan dafa am lu ma yëg sama xol parce que yëg-yëg bi ma am sama xol mooy nga nekk ci koñ di sumb dara ñëpp ñëw fekk si la ci te loolu dafa jafe te sant nga ñëpp nee nga boo doon lim fii duo fi jóge euh, émission bi temps bi duñu ko may léegi bëggoon nañu xam yow Tata Mikole euh, avant ngay ngeen di créer association boobu yow da nga nekkoon benn femme boo xamante ni da nga doon yëngu ci affaire léegi yow ci politique ci kañ ana kan ban leader nga mës a njëkk àndal ci politique mu la dugal ci affaire politique parce que dama dégg ci say kàddu nga wax ne euh, kii Mouhamed Bengelou seet si na xaw ma ay mbokkam ñu expliquer ko am nga tamit keneen ku fi seet si ay kii tamit ñu expliquer ko booleel ak maire donc kon am na am na loo def ci quartier bi yëngu ci politique ba tax ñu am ñun nga booleel ba ngay coordonné ak ñoom ak euh, waaw loolu moom dama ciy sawar a tontu ndax euh, Aliou Lo mii bi mu commencé liggéey ak Modou Ndiaye boobu ma ji ñëwagul la ma Aliou boole ak Modou njaay wax dëgg yàlla ñu ànd ànd bu rafet nag ànd ànd bu rafet si jamono yooyu bi ma demee ba nga xam ne dem naa ba yu bari tënk ma ma préféré toog liggéeyal sama quartier nekk ci affaire u développement loolu moo ma yóbbu ci loxo yeneen yi nga xam ne tudd naa leen ko fii parce que instant yi may dem ci ñoom xëj na taxaw bi ma taxaw ci quartier bi moo ma yóbbu directement ma jàll conseillère parce que ñoom dañoo gis loolu ma doon liggéey ci loolu lañ ne ma nañ la investir ndax euh, conseillère du dara lu dul ku mën a taxawal quartier mais nag euh, politique soo ma ci laajee lu ma ci xam ginnaaw yàlla ak yonent bi dama koy gërëmee Aliou Lo ak Modou Ndiaye Rahma mi nga xam ne moom laa ci njëkk a àndal ndax euh, ku gërëmul yàlla doo gërëm nit alloo moom ma booleeg moon njaay moon njaay ñu ànd ak moom mu fonk ñu lool nag respecté ñu lool xam ñooy kan teg ñu place nekk tamit nit ku baax ku man nitam ku bëgg euh, euh, Kaolack rawatina abatuwaar gii ñu dëkk kon su fekkente ne tey damay wax ci politique balaa ma doon wax kenn war naa ko njëkk a wax ndax lépp loo xam ne am naa ko tey ci politique wala def naa ko ci politique dama ko koy gërëmee ndax bi ñuy ànd ak moom boobu dañuy jàng politique boobu dañuy jàng bu ñu ñëwee toog euh, dajaloo waxtaan àndandoo wëri nit àndandoo di di di toog di euh, euh, di réunir di uti ay nit di yokk suñu mbooloo di def suñuy conférence lépp ci moom lañ ko defal ndax boobu ñun xëj na ay duñ ay xale mais loo xam ne danga nga ciy doog a dugg kon ki nga ci àndal ba mu teete la ba tey yàlla def euh, bu ñuy wax ci politique tudd la macha allah da nga ko koy sante merci tata Ami ale dañu buggoon nga nga nga lu ñu tuuti yow tamit ci koñ bi d'après li tata Ami Collé wax ci wàllu euh, jàppalante bi nekk ci seen koñ bi man su ma déggee seen i wax daal seen koñ bi da ngeen def bloc da ngeen suudewu bu benen bu da yeen ay xàcceendoo di dóorandoo wax deug yalla loolu nek lo xamantene ne lu rafet la en tant que yow jeune bo xamantene da nga nek nit bo xamantene ne da nga da nga da nga populaire ñu xam la partout dans le monde yow aale dox nga ci ay jéego yu am solo parce que man xam naa ne borom nga ana yan dor nga dor dal ba ba ba ba li ngeen wa wa wa ki comment dire wa Promoville taxawu ci sen euh, bëgg-bëgg bobu waaw dama nek ne. sot si ak def si la rek xam nga nit soo dëkkee si koñ nekk fa gënoo nit ñi si juddu gënoo leen ndey gënoo leen bàyyi yàlla dogal ñu jiital la loolu ba nga xam ne dina am ay ñaxtu yoo xam ne keneen du am loxo bi nga am pour mun koo yeggale yàlla dogal si ñun la ko yàlla dogalee ñun fu nu mun a waxee ni nit ñi dégguñu ñeneen ñi tey amuñ ko ñuy wax li nga xam ne tey mooy seen naqar ba yàlla dogal yàlla dimbala ñu ba ba am si ndam gis nga man sama jaar-jaar si si politique mun nañ wax ne fa la dafa baax rek di man di wax man di ma di ma tudd waaye moom tamit moom laa war a njëkk a gërëm parce que jëkkëram moom moom moom moo ma yar bu ma nekkee xale yar ma ñu créé ay association bokk doole si waar ma nuyu de passage samay xarit ñu ngi ko nekkaloon ñoom ñëpp ñu si encouragé di ñu dimbale di ñu wax ne kat ay xale ngeen waaye defee leen nii waxee leen nii koñ soo ci nekkee loo mi fàlli def moom ngay def dangay ngay fàtt sa bopp ngir koñ bi nga dëkk li nga war a am di ko war a waaye koñ amul ndey amul baay yàllaa ko moom waaye yéen ñu fa dëkk yéen a ko war a taxaw waaye soo nekkee ci koñ su lëndëmee nga ne sama yoon nekku si su tilimee nga ne sama yoon nekku si su amee ay jafejafe nga ne sama yoon nekku si kooku noonu yow amuloo koñ ba njëriñ nit ki fi nga dëkk su amee jumaa da nga si war a taxaw su amee école da si war a taxaw su amee jafe-jafe muy lëndëm da si war a taxaw mu amee jafe-jafe muy ay mbalit insalubrité da nga si war a taxaw ba si ay détails yoo xam ne si biir famille nangamu sax da nga si war a taxaw mu saafaraw jëmm ji nag taxawaay boobu la taxawee moo daba koy wax fu fu munti nekk ma ne leen ñun lu lu am mu na ko ñu bëri amuñu ko parce que fii ñun bokk ñun bokk nañ dey bokk nen bàyyi te ku yàlla jiital nangu nañ ne nangu nañ ne moom la yàlla jiital te Ami Fall ñooñu mu doon jiite gënu leen waaye yàlla dafa dogal mu jiite leen ñu nangul ko ko ba tey muy muy liggéey liggéeyam ba lum liggéey yàlla fekk ko Benzaloum ñëw fi fekk ñuy seet seetal parce que seul le travail paye ñu dem mënoon nañ ko dem jaay ko comme ni ñu ni ñuy politiqué dem jaay nit naa diwri am na mbool te fekk amul juróomi nit waaye danga ko fekk sur le terrain mhm. Benzaloum ñëw di seet ay mbokkam fekk ko ñu dajaloo di bale mhm. fekk leen si ay jafe-jafe yu métti ñu mu laajte ñu ne ko kiiw moo ñu jiite

te yow fi nga dëkk jóge woo fa te fi nga dëkk bés bu nekk jafe-jafe yi dafa am ndax yàlla moo bindee noonu jafe-jafe ak nit ñi tey ba léegi tey tey jii nii après élection si la ndam bi am muy muy muy muy tali ñuy àndi di ko defar chef na quartier bi lépp lu muy def ci quartier bi dina ana Ami Fall foo nekk loolu quartier moom rek fi dëkk. lu tax lu tax loolu parce que tey acte développement bu mu nekk ba pare mu nekk lu lu mu nekk gëm-gëm mu nekk maqaama si moom du aal. maqaama mooy lu sax si nit ki waaye àll mooy luy dem di ñëw mooy ku foo koo xam ne li muy wax ko koñ bi fii képp président États-Unis su la ñëw si koñ bi sax moom dinañ ko on te day toog loolu lu ko may mooy nit da ngay fi nga dëkk kon tey bu fi mu nekkoon daanu leen waaye moom daanu ba léegi moom moo yor kàddu koñ bi keneen kuy ñëw ak koo munti doon soo ñëwee si koñ bi tey jomaay su la ñëw fii si koñ bi sax dana wax ak moom loolu noonu lu ko may mooy liggéey ñun nag ñun ay ndaw nen ñun suñuy puus suñ ñii suñu yaay nañuy puus ak suñ suñu jigéen nañuy

foo ko fekk du wax day day jël généraliser parce que kaolax ci boppam en cas général moko ñor kon nang koy ñaanal mu dem ba nek député tay député yu melni tay mom la kaolax soxla tay député melni su ko Kaolack amoon duñ wax ne suñu député yu amon baaxul de may nuyu de passage yi nga xam ñoo nek ay député kaolax muy ñom aji melgan kanu tay ay nit ñu bax nen ay ñom benzulum ay nit ñu bax nen waye député yu melni xex kat yi jambar yu melni su ko Kaolack amoon tay tay tey bonus la plus la plus la parce que parce que ay jàmbaar nañ yoo xam ne ne jafe-jafe Kaolack yi kese moo leen ñor ñu ñëw si ñu ñëw si yeneen laaj. waaw euh, taa Ami Collé euh, Alé ñu ngi rafetlu kàddu yi nga wax taa Ami Collé bëggoon nañu xam tamit euh, ana fan ngeen toll ci affaire tali bi. waaw tali de bërki démb defe naa le 30 le 31 lañ si mujjee réunion. waxtaan si biñ tamit yemuñ rek ci ñun ti toog déglu leen posé nañ leen ay question ndax nee nañ leen euh, boobu ba léegi ñoo ngi toog di waxtaan ci tali bi budget bi dafa taxaw wala ñu ne ñu ne pare na lépp pare na budget bi yëpp techniciens yi ñoom ñëpp ñoo ngi toog ndax euh, talibi mooy Kaolack tali bi dafa bokk ci Kaolack comme ni ma leen ko waxee keroog ñun nag bu ñuy xeex xeexaluñ suñu bopp ndax amuñ sax oto kon xam nga tali moom mun nañoo bañ a sax ak kii mais nag da di dëkkuwaay ñun dañ dañ dañoo fonk li ñu moom te Kaolack la am boo gisee biñ daan jël di bale ndax projet bi loolu la woon éclairage assainissement ñu xeexaale ñu defar tali bi bu ñu xëyee nekk ci tali bi nekk ci kanaal bi tali bi daaw mun njaarax ma seize euh, charge suuf la ñu may ñu sotti ko ci sëkk ko ci muy won lu metti lol ndax eh, tali buñ démé bakoy koy sëkk nga xamné ñu fa dëkk amuñu lu leen neex Kaolack nak xat nek dëkk bo xamné dafa bëri dem ak ñëw dug ak genn bu màggal joté sa yaram bi day daw do ci bëgg dara légui tali bini ni su baxé ñu xoti ay yoon yu jaar école ndangaan dem ci benen tali bi day yombal dem dem beeg dikk bi te li ki naan jobot ku ko jappalé ci njobootam ñun ay njabootu Kaolack lañ ay doomu Kaolack lañ moo tax lépp loo xam ne buñ ko eh, mu nee xeex pour Kaolack dellu fa mu nekkoon wala mu romb ko dinañ ci taxaw def ci lu ñu man te te du tali bii rek la xeex ci koñ bi parce que canal bii defe naa ne buñ ko dalee yàlla ñun ñii ñoo tax ñoo ci taxaw def ci lu ñu mën ba ñu dale ko ndax buñ dul xeexal ñun fi ñu dëkk boo liggéey keneen kuñ ne dinañ la xeexal sax doo ko gëm euh, am na benn jour dama toog di seetaan assemblée ma dégg euh, président benn di plaider ma envoyé ko message ci saasi na ko bul fàtte tali bi parce que fii la ñu am ñun amuñu fenn Kaolack lañu am ay doomu Kaolack lañ ay santinelu Kaolack lañ te balaa ngaa ne nag man santinelu Kaolack laa bu tey bu ngeen ñëwoon tey suñu koñ bii may toog di wax loo xam ne bu ëllëgee waa koñ bi suñ ko seetaanee naan du dëkk dañ may xeeb kon mbay sa wey tànk kenn ku nekk fi nga dëkk xeexal ko bu fekkente ne yow yàlla may na la nga mën a yegg foo xam ne ñi si des duñ ci yegg bu fa yeggal sa bopp kese fàtteel sa bopp du waxal leen ñoom seeni soxla man de man faal lu may xeex ci Kaolack waar da ci ëppale su ma paree ma teg ci Kaolack su ko defee ëllëgee bu ñu wàccee fii ma dëkk duma fi am gàcce. ok tant ami ko le kàddu yi rafet na mais bëggoon nañu xam euh, yéen euh, tali bi ndax mës ngeen a dem ci monsieur le maire wala daan ngeen ci def ay jéego ci politiciens yi fi nekkoon wala leaders yi fi nekkoon wala ñi fi yàlla tegoon ndax daan ngeen ci dox ay jéego yu am solo wala waa xam nga euh, tali ñun bu ñu waxee dañ nañu naan démembrement état la. mais su fekkente ne état moo ko moom ñun li ñuy def dañuy mën a xeex rek fi nga xamee ne munuñ mun nañ ko mooy dugal ci réseaux sociaux yi wala ñu dem ci internet yi di wax ndax dinañ la déglu ndax ñun ci loolu la ñu jaar ba kanaal bi defaru parce que biñ koy seppi dañuy seppi canal bi filmer ko dugal ko Facebook nit ñi di ci commenter mu leer la ne autorités yi ñu ngi koy gis loolu lañ ci jublu woon te defe naa ne amoon nañ ci ndam tali bi tamit euh, noonu lañ ci def dañ ci dañ ciy def ay ay ay ay waxtaan di ci def ay ñaxtu ndax fi mu ne nii ci ci loolu nga mën a jàppaleel ñi nga dëkkal ndax su fekkente ne da nga nekk ci koñ yow nga am possibilité di wax ñu lay déglu te yow waxoo li nga xam ne moo la jege kon amuloo koñ ba njëriñ ñun nag ci noonu lañu sukkandiku di xool li nga xam ne mooy ay jafe-jafe suñu koñ ñuy seet ni ñu koy mën a def ba yéegal ko ba nit ñi di ko yëg foofu lañ si jaar ba yàlla def tamit lii nga xam ne bi ñu koy def euh, boobu Mariama Sarr moo nekkoon maire mais nag euh, bàyyi woon nañu xel ndax ñun xam dañ ne bàyyi woon nañu xel parce que heure yooyu ñu doon def loolu ci heure yooyu lañ ñu commencé di woo réunion kër chef de quartier bi nga xam ne moo fi njëkkoon a nekk ñuy waxtaanee tali bi kon ñun suñuy wax yi am na si njëriñ te incha allah euh, tali bi dina ànd ak assainissement dinañ dinañ dinañ defaraat kanaali bu soobee yàlla dinañu yokkaat éclairage yi parce que loolu yëpp suñu ñaxtu la bokkoon te won nañ ñu ne li ngeen doon wax yëpp jot nañ ci incha allah ñu ngi ciy taxaw te bu soobee yàlla balaa yàgg dara di nga xam ne ñun liñ lay wax ni du lu ñu for ci mbedd lu ñu dox togg ko ba mu sotti te xam li bu baax liñ ci wax incha allah yal nañu si yàlla yóbboo ak jàmm. amiin waay Alé bëggoon nañu xam yéen seen kanaal bi ana kan moo ko defar kan moo leen defaral canal bi. bi moom moo parce que soo xoolee am canal yi commune bi ko war a defar mairie ñoom ñoo war a bi ñoom ñoo ko defar canal bi damay gàttal rek parce que xam naa temps bi xoj nañu waaye canal bi daj nañ si lu ne ñu muy nuyu de passage ñoom Matar Diallo yi nga xam ñoo nekkoon deuxième tali jamono Azutip. amul luñ ci dajut ba premier tali bi. keroog bu def kaolax ville propre xamna naa ñu bari xamuñ ko fii Aprosène kéro bu directeur bi ñëwé fi suñu zone bi ñun nañ wu ñu dem mais na am la ñaar ño xamni nañ ci aduna muy madame tiaré ak fosser kéro bu ñu discours wax def pause madame tiaré kéro daf ma ba joy. parce que ak ndam lu waral loolu mooy danga ko doon vidéo ak photo bu bu ñëwee parce que sortie Kaolack dafa tilimoon ñu am projet boo xam ne gagné leen ko pour pour ñu xool ñu ko assainir ñu oo ñu ñun nga xam ne dañuy yëngu si wàllu environnement ak yooyu noonu. bu ñu demee maire mu ngi toog yàlla na yàlla xaar àjjana majee na waaye directeur bu mu waxee dama la ko gis nga projet bii nii soo ko jëlee presque soixante-dix pour cent ko commune bi Kaolack moo siy wax loolu ma ne ko ñun ñi nga xam ne tey jii nii ay acteurs ne nga xam ne ñun

ñu ngi ñaan yàlla tamit comme lu ko Ami Fall waxee projet bi ànd na ak assainissement euh, ak ak éclairage waaye tamit ñi nga xam ne tey jii nii kat mooy ñi nga moom mooy ñu war a liggéeyal taali bi suñu ñëwee tamit dinañ waxtaan ak ñi notable yi nekk fii muy problème duudaan yeeg euh, problème canalisation yooyu yëpp dinañ ko si càmbaraale xoolaale ko si ba nga xam ne dinañ ko def si anam boo xam ne koñ bi du si loru te lépp luñ si bëgg dina dina dina si am di may nuyu de passage tey suñu waxee émission yi ba mu jeex te gërëmul Mouhamed Ndiaye Rahma dañuy dañuy sax goree di du question dara lu ñu fa bokk waaye fii bu nu amee jafe-jafe mu métti lool lu ba faa la koy wax si 16 xaw ma xaw ma lu ëpp loolu jël na ko si ay ay ay garawaal ak ay suuf ak yooyu yëkkati ko may ñu ko yàgg ñoo jàppale si ay jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko fii nii tey mu nekk loo xam ne danga koy gërëmee di ko wax di ko ñaanal yàlla jóge nañ si élection yàlla dogal lum dogal waaye dañ lay ñaanal yàlla yal yàlla dimbale la yal yàlla kattanal la yal yàlla jox sa càkkutéef saayir ak baatin ndami koñ bi nga kon wàccoo nga ñom defal nga len lepp lu lepp lu nit di defal koñam ci lu baax tay defal nga ñuko ko ñu ngi ñaan yalla yalla yalla dimbali ñu Ami Fall tamit sama kaddu gu muju ñu ngi koy gëreem di ko wax ne ko si tudi koñ bi ndami koñ bi la ndax na koñ bi jàppale na koñ bi jàppale nañu fofu jappale yam di ko yalla yalla am ay yeneen promotion yo xamne dana ko am ba nga xamne tay tey jii dina ko gis ay assemblée wala fenen ñu naan kat ki kat ñu mo fi la tambalé tay mu nek ndam bo xamne ndami koñ bi la way day nek ndami nek ndami senegal yépp yàlla na yàlla dimbale ñu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa ah, tonton Alla ñu ngi lay fay di la jaajëfal dina kontaane ta mi Kole bëggoon nañu xam nga nga nga nga jofal ñu tuuti ci problème mu assainissement bi ak duudaan yi nga xamante ne Alla mu ngi koy jàmbat euh, ci tali bi nga xamante ne programme ngeen ko ba programme yëpp taxaw ci kattanu yàlla. waaw biñ leen bi ñu waxee tali bi wan nañ leen carrément ne euh, ay nit ñu ngi fi te. tali bi su baaxee defe naa ne waxuma oto yi des ci kii bi rek mais yi génn dëkk bi yëpp fi la ñuy jaar ndax fii moo gën a jege garage Nioro euh, sàkku woon nañ ci ay duudaan sàkku woon nañ ci tamit euh, ay trottoir sàkku nañ ci ñoom tamit ñu ubbiwaat kanaal yi curé ko euh, dindi suuf si ndax su nawet jotee ndox mi am fu mu jaar ndax fi ndax montagne bi dañu dañoo fee ci ci kaw dañ ko sëkk moo tax ndox mi du doon mën a jàll loolu tamit ñaan nañ leen ko wax nañ tamit eh, ci làmp yi nga xam ne eh, nit ñu ko defalee woon ci tali bi dafa soriyaatoo soxla nañ lamp yi mu gën a bari ndax tali bi gën a leer loolu moo nekkoon suñu mëbët ñu waxtaan kook ñoom ñaan nañ leen tamit eh, bu nga xamee ne commencé nañ travaux yi fii si koñ bi doomu koñ bi ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci loolu ñaan nañ leen ñu jàppale ñu jëlal ñu leen ci loolu daal lañ waxtaanoo nag ñoom kon nag euh, defe naa ne di ñu war a waxtaan yëpp euh, xajul ci émission bi mais xam naa dinañ tëggaat émission bi beneen yoon maa ngi nuyu nag euh, sama borom kër di nuyu sama yaay yi ma nekkal yi ma nekkal ci kër gi ak suñu waa kër yëpp maa ngi leen di nuyu di leen bégee di nuyu waa koñ bi di nuyu nag sama mentor maa wax émission ba mu jeex te gërëmuma ko sant ma ko surtout ma taxawaayam ci abattoir ak ci Kaolack taxawaayam ci Kaolack euh, kenn naa wu ko mais ci abattoir moom kenn werante wu ko ndax mu fii def loo xam ne am na ci loo xam ne sax nit ñi yëguñu ko ndax assainissement bi ñuy jooy abattoir ci élection yi defe naa moom def na ci deux millions cinq cent pour jàppale ko waa abattoir yi pour ñu am assainissement mooy ñu dëkkee ca kaw muy jàmbaare lool nag ñu ngi koy ñaanal euh, lépp loo xam ne mu ngi ko mébét ci boppam yàlla na ko yàlla may lu ko raw bu baax la ku mën a sonn ci nit la ku bëgg askanam la yàlla na ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay xolom yàlla na ko yàlla jàppale ndax ñun lu ñuy wax tey ci politique moom moo tax te sans moom ñun duñ doon dara te defe naa ne moom politique ñun moom lañ ciy topp te ba fi may waxee yow tey jii moom laa ciy topp maa ngi koy gërëm di ko sant di ko jaajëfal di ko wax li mu sonn yàlla na ko ko yàlla fay ndax kenn du moom yéen tamit euh, maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal ngeen am yokkute ba mu nek ay télévision ay radio ay ay euh, kii. dama amone benn question bu ndaw bu ma bëggoon a dugal balaa ngaa tëj balaa ñoo tàggatoo. dama bëggoon a xam euh, ni ngay waxee ma mu rax ma ku am cofeel ci moom nga ci sama yëg-yëg. Mhm. yow ak aale wax dëgg yàlla ndax ne lii rek mooy bëgg. parce que nga bëgg nit ki di ko topp di ko topp ba yàlla euh, fam leen tegoon yàlla wàccee leen waat fa ndax euh, nguurug yàlla rek moo dul jeex ngeen continuer di ko topp di ko topp loolu mooy sincère te loolu mooy dëggu. te nit li ñaan sima ben yon rek ngay toy man dama bëggoon xam defet bi nan ngeen ko dundé sama ñaari ñaar ñima togalon ñi nak tay nan ngeen dundé won defet bi kérok ci koor gi da ngeen a xëy wori wala da ngeen defet bi da ba tay sax defena naa wuñu wërna yalla billahi man dé affaire bi daf ma jëlé ko ndax wax dëgg yalla bu liggéey rek doon maye ndam dinañ am ndam parce que liggéey nañ ko Mon nekul ne dañ ko bëgg mais mom daf ñu bëgg te dañ ko miin moom daf ñu miin suñu kafandoo la donte moom mooy suñu mentor mais bu ñu toogee moom da nga doo xalaat sax ne ñun kii moo ñu jiite ci politique parce que doxeewu ko waxeewu ko ndax dafa jàpp ne moom ñi muy àndal ay sëram lañ ay frère lañ mu di dundeek ñun noonu kon ku mel noonu ci politique yombul defet bi nag métti nañu métti woon nañu trop trop ba léegi sax euh, digérer ko yombul waaye nag jaam ak pexe yàlla ak dogalam mais keroog euh, jour boobu defe naa ne bés buñ dul fàtte la ndax bés bu métti la ndax dañ ko liggéey xalaat ne mën nañoo gagné largement donc boo ñëwee rek résultat yi demee noonu yow mbetteel ngay am donte naqar ngay am mais dangay am mbetteel ndax li nga foogoon ne téye nga ko ci sa loxo euh, fekk ne téye woo ko loolu métti na torop waaye nag bu yoon jeexul waaxu sel du jeex. foogoo leen ne li fi da ngeen amul ay mun ñaay raxma yu bari parce que bu doon benn mun ñaay raxma bi li mu def fukki moromam ay politiciens yu nekk au niveau de Kaolack def nañ ni ni mu defee ni mu taxawaaye ni mu liggéeyee ah foogoon ne kon euh, dina demee neneen euh, ndax moom ndax moom def na ndax ñun tamit dañuy dugg fu ne di cor corxo di jot information bu ne wax dëgg yàlla macha allah gis nañ taxawaayam ci Kaolack kon nag buñ ne woon ñaari mun ñaay raxma wala ñetti wala ñeent kon ndam li du ngeen ko naatable de. man de lu ma gëm la xaw ma nag yéen ñi ma ko gën a jege. dëgg la ñun ñii sax loolu lañ gëm. Mhm. ndax euh, boo xoolee euh, électorat euh, local yi defe naa ne ba léegi muy fulati Kaolack kon kon moom ay kiyam la ndax législatif yi bi mu ñëwee dafa liggéey liggéey boo bu mucc ayib ba nga xam ne défi bi mu amoon daf ko jéggiti mhm. ndax soo jógee ci defet jógaat taxaw jàmbaar nga waaye nag benn lam du kandang te mun njaay booy xool dafa mel ni benn lam la Kaolack ndax moom dafay liggéey pour président Macky Sall la daf ko moom dafa gëm li mu ne toujours damay dégg ci waxam danaan ku fiy signé di wax ñu lay déglu président Macky tax kon bu soxlaa ñëpp war nañoo taxaw moom nag taxawaayam moom defe naa ne kenn werante wu ko Kaolack ndax su fekkente ne moom euh, ñëw toog na un mois ñëwul Kaolack yow doo sentir sax politique gu ndax toujours ci département bi fu ne mu nga fa te fu mu dem dem fa ak dooleem dem fa ak alalam te amur la koy defee lépp pour ndamu Benno Bokk Yaakaar man toujours damay wax euh, Benno sans Rahma Kaolack euh, Benno n'est rien ndax Rahma toujours raxma raxma ngay dégg mais nekkul na moom kenn moo fi nekk mais li mu ci nangu bëri na ñoo xam ne nanguwuñu ko ci boo xoolee campagne bi ni mu demee nga xam ne sama waa ji jàmbaar la waaye nag bu amoon ñett wala ñeent ñu mel ni raxma defet duñ ko am fii Kaolack duñu am defet Sénégal sax bu amoon ñu mel ni moom kon defet bi ni mu toll nii du ko toll jàmbaar la lool macha allah lu mu nekk nekk na ci moom lu mu ne ci la ne te da ngay xam ne ci la ne su la ne waaw rek waaw la kon ku mel noonu buñ ko amee ñun dañ koy téye eh, mën njaay ma ñun dafa bokk ci ñun ñun ñoo moom mun njaay raxma kenn koo xam ne ñëw nga dag ñu ci fekk suñu góor la suñu càmmeñ la doo ko nekk suñu mantoor loolu moo tax ñu am benn cofeel bi ci moom ma nekkoon naa ci benn eh, association boo xam ne dañ ma doon wax ne espion Moon Njaay laa parce que boobu bàyyi naa politique te ñooñu maa ngi leen di fréquenter bu ñuy wax su ma waxee li ma xam ci moom ñu ne ma yow moom espion yam nga fekk ne dama ko xam ndax bi ma koy xam boobu man defe naa lu tuuti laa ma gimmee politique ci loxoom dégg ay kàddu yu bari mu di ko wax te lépp lu la wax nga teg sa bët parce que bokkul ci politiciens yi nga xam ne dañuy ñëw taxaw ne dinaa def lii dinaa wax lii bu joxee gannaaw mu mu nekk ay waxi kese lum la dig def ko lum la wax naa waaw waaw la kon mentor bu mel noonu boo ko amee soo ko bëggul xaw ma yow kan ngay bëgg toog naa biñ ne ma jox la benn kii rek biñ ne ginnaaw suba la élection yi ñu toog nii ñun benn groupe di waxtaan ba yàgg ma ree ñu ne ma lan ngay ree ma ne noo dama xam ne ñoo rax ma rek yàq nañu duñu mënati am beneen mentor ndax ñoo moom comme ay morom ñu bokk gaam dama ne mu déglu la wala wala mi ne la dama ne la ngeen di waxante di échanger wante mais loolu yombul politiciens yu bëri dañuy jël seeni numéro téléphone jox jox la keneen nga woo leen ñu paas la ku lay tontu raxma da nga koy woo moom mooy wuyu defe naa ne Kaolack fii boo doon wër ñu yorul numéro raxma doo ko doo génne diis que da ngay dox ba dajeeg nit sax mi ne la envoyé naa message loolu yombul kon daal man li ma koy ñaanal mooy li ma waxoon sànq rek yàlla du fay wax bàyyi jëf li mu sonn ci géewu politique dina ci am lu sut njortam ndax borom karaw gu ñuul la te xale la politique nag moo euh, daanu ñoo ànd mm-hmm. mais euh, ab lay wàdd ñaata at la nekk opposant mm-hmm. pourtant bi falu jotee dafa falu mm-hmm. da ngay xool ci Nelson Mandela man moo njaay ci qualité yooyu laa koy xool Euh, Kaolack nag soxla nañ ko mel ni moon Njaay Raxma te Kaolack dañ koo bëgg ndax dañoo juum mais léegi tey jii buñ élection locale nekkaatoon tey bu Raxma demee dina gañe ndax Kaolack waaye bëgg nañ ko lii fi jaar nag ngelaw lu fi jaar la yàlla na ko fi yàlla yemale waaw tey amoon nañu mbégte ak contentement fi nga xamante ni moo nekk diwaanu abatuwaar Nangaan tey nag dañu toogaloon ku ñu wax Tata Amy Collé Fall mi nga xamante ni day yëngu ci développement di yëngu ci social buñ ko waxee ñëpp xam nañ kan mooy Tata Amy Collé ak ki nga xamante ni mooy Alelo borom euh, Feeling 221 borom Kaolack surtout mboose kumba jigéen bi moom lañ toogaloon di leen kontaanee di leen jox jaajëf euh, di leen jox dig daje ba beneen émission ak ci yeneen anam. ak ci beneen quartier. abonné ci Feeling 221 ngir mën a am ay xibaar yu wër te woo Feeling 221 un euh, cœur de l'information.